mais je que nii yaa ngi doog a yow xam naa ne nit nga quoi. bi mi ngi ñëw. effectivement effectivement te dama bëgg am ñëw bu jox ma. dëgg la dëgg que la ko mhm. de. parce dégg na Modou création. merci beaucoup kii ñoom Fatou Waré ñoom ma ne la woykat ndaanaa ni ci réew mi yëpp moo leen di ñëw. vraiment c'est bon kay. kii kii mooy Modou. Modou ngi nii lu ndaw lii la de boo gisee di ko xeeb

nous sommes ombre et dem ibi voilà hommes. Nous nous léegi les ñun ñun sommes léegi dañoo nous liggéey en même temps ba sommes tamit war nañ di gestu leen xam nga di le nombre ñi ngay jël bu ko am ak problème ah man de wax hommes. voilà ça fait presque cinq ans ma suis fréquenté merci musuma gis nit ñëw fii di fayeeku. damay damay jamale sama ah, kii la kii moom lu la wax loolu lay def. moom daanaan ah, bëgg ah, bëgg naa sunu li dafa rafet. non tissu bu baax bi la que boo. moo tax ma bëgg la quoi. moom man de xaw ma sax nuñ koy xàmmee. si kii moom xam naa nekk ak sa métier. ku nekk ak sa métier. non yii yii du dara ci man dama la jox nii pour nga xool rek mais xam naa ne yow am na style bu ma la bëgg jël si yow. waaw bu ma la bëgg a ñamal. waaw non su tuuti ma xool jógal il faut nga. nga baal ma excuse voilà parce que tamit nit boo koy ñëw il faut nga xool ko voilà merci. waaw waaw mm. voilà gis naa ko mais yow. dama lay ñëwal lu ma mësul ñëwal kenn. mais xanaa sa bàjjan moo doon séddale. séddale tamit. ah tamit wax ju egg doxul. Ah, bàyyi daal day merci mm. beaucoup lii laa wax. yii moom danga nga koy xool nii rek. mais man gis naa sa modèle bu yàgg. Ah. kii typing laa koy ñëw typing. typing. oui kenn du ko sol. yow rek ah, koy sol création bu bees la. xam nga man damay xool nii rek xam lu ko jàpp. typing nga koy jàpp. moom laa koy dóor. daanaan nag gis nga daanaan. daanaan.

dañ na daan xëy am ah. lu mais man ñaw bii nii maa ngi ko doon ñaw maa ngi ko bëggoon dama ko tegoon pour ñawalee ko gars yi cent à partir de cent mille laa doon demande mais yow comme sama jigéen mm. te bëgg naa ñu wax liggéey joxe cinquante mille ma ñawal la ko taf taf du yàgg. Mm. lu kenn solul yow rek yaa koy sol. ah bi. man de ah, loolu laa bëgg moom. dama ko daan fay te duma am lu ma neex. non bu sonn bii moom moo la ko doon. man gis naa say ñaw bi ma njëkkee gis sa ñaw sama benn copine bi nga ko njëkkoon a ñamal. Mhm. dama choqué. dama nekk xamu woon ne que ne am na ay designer yu nekk si dëkk bi ba instant bi merci tellement ñaw bi modèle bi man xaw ma noo ko créé. je sais je mais nag ah. mais nag doom yaay bul fàttani xale bi dañoo war a dem réer këram xoolal. non loolu amul problème. am benn souci. wuy ma wàññil ko ëffal sa loxo rek. Ah sa loxo

oui. jëlal ma dënn. dënn. poitrine. poitrine. poitrine yaa ngi am quatre-vingt-dix-sept mètres. ok waaw. loos. loos. loos. mais te ko xanaa konaal. non fii ñoo ah. ci am nga loos trente-six mètres. trente-six mhm. mbaggu large wala mbaggu long transis large xam nga 36 mètres. ok 36 chus chus chus Wow. pardon defal nii tuuti. waaw suñu gaaw a génn. cuus cuus ngi am 10 mètres. 10 mètres waaw 10 mètres cuus. 10 mètres. la man nambar nambar number hand yaa ngi am. yaa ngi am number hand yaa ngi am 46 mètres. xale bi kii kii kafut de kii day kii. kii de barki yonent bi yàlla bu ko cat jàpp testel tegal fii sa tànk bi. ma teg sama tànk day kawe. day kawe baax na parce que boo koy sol quoi. boo nga may ñëwaat. Ah? non non yow kay noppi rek. Ah. testel yaa ngi j'ai confiance toujours parce que ñun dañuy liggéey sans problème hein. mm. Pourquoi tu jëlaguma ko de. Pourquoi pote non non non li, yow kay ci. yow li na dé, wa. non non ba ci jël mesure. ah ah ah Ne ah, ah. bi jël. ah non pas. xam nga affaire pour buy ah. am 27 mètres. ok c'est bon. c'est bon mooy c'est bon. veten corte bara bi jëlaguma ko. veten corte bara sëggal nii tuuti. ah sëggal bu baax. ah lii métti na de. waaw da ngay nii. waaw waaw noonu baax parce boo ko ñëwee boo lekk yàpp nii. des ngay xaw a sëgg nii. sëggal bu baax bu fekkee dafa seere. yii man nii laa mën a sëggee nag. seen bi dafa xam regarde ça di nga bara bi ma dem mais ñoom ma ne kii may jëndalee beneen côté bara bi dafa kii dafa collant trop te man bugguma lii. soxna si waaw kon les la si fii dañuy liggéey. ah seen bi tamit dafa xaw a collant. non. Eh, ngeen baal ma non tamit xam nga tamit da ngay ah, liggéey Modou man tamit ah comme eh, ni ma la ko waxee rek j'ai confiance en toi kon baax na jeex na léegi mën naa dem sama place waaw mën nga toog d' mais soxna si mën naa am sa numéro téléphone xam nga soxna si nee la boo hmm. gisee ni ñu jëlee mesure nga xam ne ñow bi la nar a xoola amul fenn

dama denc suba suba 9h bu la neexee mën nga ko jësi. gis yow loolu gaaw na te mën naa bàyyi nga gis temps. yàkkamtuwuma eh, eh, eh, kii ay biir du yàgg kii da ngay indi ñaw léegi léegi sax mu ñaw ko legi. c'est que programme yi xawoon bëri sax mais da ngay legi ñaw léegi mu pare léegi léegi loolu du problème. wa kon baax na xam naa demain incha allah. waaw baax bon ok kon mën nañ def noonu. Ah? wa daal waaw tur bi tur bi tur bi. Astou. Astou Faye. kontaan trop nag. merci Astou ok.

ñëw ba pare na. <laughs> waaw baax na kon maa ngi dem Modou dégg nga. waaw ñu def noonu. mais Mala merci. ok xam naa kon ba demain incha allah. incha allah merci beaucoup ok d' accord. bon merci. tu m'as parlé. mais booy eh, waxal olof nag déggoo Fra jàngal nga bañ. mais booy nu mu gis. booy booy dëgër nga fit nag. ñu dem balaa Modou di ci fekk. Eh. ah loolu kay jarul wax. suba na xool suba bu ñëwee xool ñu xam ni nga ko lëjëlee rek. bon su dañ fi dul jaar sax suba. ñu jaar. la Luis.